asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokk taalibe yi rawat nag bokki murid yi dëkki Tuuba xanaa di wax wax ju gàtt rek te tënk ko dafa am jamono yi dëkk bi am po dafay bari lu mel ni tëgg ak fecc ak kar ak naan ak yu niroog ñoom ba am jëmmi jamono benn julli ajjuma boo xam ni sëñ Abdou Khadir xamul lu muy julli ndaxum tëgg ba mu noppee waxtaan ceeg sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir yëkkati wax ak njabootu sëñ Tuubaa gépp booba ñi fi nekk sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir sëñ Sohaybu sëñ Murtala ak moom ñoo fi nekk mu woo itam sëñ Mbàkke Madina nga xam ne moo koon sët yi wax ci ak ñoom doo ko yëkkati kàddoom tere la muy tere muy dox ba nëgë ni loola moom jeexoon na fi tàkk bu jeexutam wàññi ko woon na ndax lu yàlla tere woon de taxul nit ñi ba ko yonante bi tere ko taxul nit ñi ba ko sëñ Tuubaa tere taxul nit ñi sëñ Tuubaa tere ko nit ñi di ko nëbb mu ne kon alhamdulilah gannaaw ñee tere na ko bëgg waaye ñu ngi koy nëbb rek sant naa yàlla léegi nag dañoo weesu nëbb dañ koo fisal léegi ba fam nekkoon lu ko rawaat am ci dëkk bi te loolu nag day xotti arma sëñ Abdou Lahad nag ba mu signé daf koo jox procureur Jurbel bi kuñ mësaa jàpp fii bu buñ la yóbboo boobu gendarmerie fi nekk gendarmerie dañ la fay téye ñetti fan yóbbu la njaareem bu fekkee da ngaa màndi ñu tëj li 45 jours booy gën ñëwaat la bu nel boo dem tox ñu tëj la fukki fan wala juróom benn fan nga fay 3000 ñu doog laa bàyyi. tëgg moom booba kenn defatu ko daa tegoon ci ci rond bi ay nit ñoo xam ñooy sayt lool ba mujj mu doog a andi gendarmerie ba muy andi gendarmerie tam Abdou Diouf la ci waxtaanal bëggoon na andi police Abdou Diouf ne ko police day yàqu dëkk andi gendarmerie gendarmerie nag jàngal nañ leen yar nañ leen xam nañ fa ñu war a dafa la ñuy yem police nag ñoo xamul dara yaree deku réew xamadi ne ci dëkk bii nag di xotti ormay satiri Sëriñ Tuubaa daaw ci réew ci ci ci ci ci ci ci couvre-feu nañ fekk dóor fa ay nit ba di jàpp ay di dugal ci maali oto kon police day yàqu dëkk loolu leen waxoon Abdou na bi ñu leen fi indee itam dañuy tere lu bon lañ leen waaye indee leen fi nag toroxal nit ñi te ñoo jàq toroxal nit ci àdduna kenn yéesu coobaan mii fi nekk wax na wax joo xam ni dara jubu ki dara du ci dëgg te dara ci ndaw la nag loo xam ne su fekkee ay supérieur am ñoo ko digal lañ ko def ndax ndaw sacrifié nañ ko ndax laal na foo xam ne au su faa laal dëkku sëñ Tuubaa bi bu dee murid da cee war a maan bu dul murid yoonu murid cee nekk ba mu ciy waxee naka sudul noonu la wax tegu ko fenn du ci dëgg na yem ci liggéeyam fii liñ leen fenn ne ñun ñëpp xam nañ ko carte gi mi ngi ci dëkk bi sàngara si mi ngi ci dëkk bi. toox mi ngi ci dëkk bi te ñoo xam nañ fa ne fa ñuy wax buntu Pikine ci yoon Daaru Musi ña nga fa de demuñu fa attaqué leen mbaar ya ña fa bari fa yu bëgg dee te xam nañ ko demuñu fa attaqué corniche bii ci wetu jàkk Sëñ Cheikh Sall ña nga fa kër soxna Ami dem ngi si Xaadim mu ña nga fa marché bii ña ngi fi gaar mu ndaw ña fi te am na ku ma te wax ju wér la nee na ñu ngi daan tooxee ci daari kaamil ci ci ci ci ñu likaayu et bi ak pencum sëñ Soy fa lañ daan toxe bi fi lamp yi nekkee ñu leer léegi defuñ ko ñu ngi koy defee diggante kër sëñ Touba ak kër sëñ mun nag boo nu porte boo nu jàppee boo nu boo nu kalaamee police police dañuy ñuy woo buñ leen fa fekk wala bis sàngam dañ fa ñëw buñ leen fekk wala buñ leen fekkee na ngeen daw te ni boo ñu jàppee ba yóbbuñu itam booy jam ñu ñu ñu bàyyi ndax suñ soxlaa téléphone bu seer nuñ lay woo ñu wutal leen ko suñ soxlaa ñu ko si jox leen kon ñoo ngi ay jubut lañ lii nag nga xam ne sëñ bi da koy tere te lu luy mën a nit womat nit yóbbu ko sawara lay lool kon ku ne war na koo bañ waaye ñoom li ñuy tere nit a ko tere oto yi ne ci dëkk bii di ay rib yu ci ñoo ko moom kër yu bari ñoo ko moom te dëkk bi leen ko may football kenn terewu ko lowaa terewu ko ci lañuy wax ñoom waaye sëñ bee koy tere dëkk bii di Touba parité fa ne ñu ngi ko def ci àdduna bi parité amul Touba lu tax kàddu sëñ bi maire yi bi ñu koy wote maire yëpp dañ ko wote Touba wote wuñ ko ndax la kàddu sëñ bi li yàlla may sëñ bi Touba nag di noppi nekk nekk nekk nekk titre foncier bi li mbooloo mi bëgg kàddu sëñ bi rek mooy mooy kàddu ndax mba mbooloo mi kàddu sëñ bi lañu dëgg moo tax seen luwa kàddu sëñ bi kon mooy luwa luwa mooy lu mbooloo mi tënk ànd ja loolu mooy luwa ci ñoom mu ne nag sunu loi mooy kàddu sëñ bi su jógee ñëw fii nag bëgg bëgg a suufal kàddu sëñ bi indi kàddu tubaab yi nga xam ne ñoo ko fa teg te jànguñu xamuñu gëmuñu yàlla te yàlla ne ko attéwul ci li yàlla alxuraan ab naafeq nga ab kàccoon nga ab saay-saay nga kon ñoom ay kàccoon ay saay-saay yëruwuñ jànguñu bu dee ndaw nag sacrifice ko buy wax na wax lu xam te xam fa war a yem du dee ci dëkk bi am fi am fi ñeenti at lu ne am ko te amu ko woon bëgg a taxaw fi nag di waa dëkk bi te yor leen ci alxuraan yor leen ci diine ba wax ci diine xamul lu diine xamul lu diine bañ fam xam tere yi nag moom mënta tee ba mu wéy ndax euh, ñoom état nañ continuer lii nag xilaaf ak sëñ Tuubaa la ba mu mel moom dong lañ ko xeex mënuñ ko tus ña doon xeex nag ñoo ko moo leen gémm ñoom police yi ndax lu sëñ bañ ñu ngi ko def ci dëkk bi bëgg a sobantel sañ sëñ Muntaxa bëgg a sobantel kàddu njaboot sëñ Tuubaa te nekk ci dëkk sëñ Tuubaa loolu dëgg du yoon ministre de l'Intérieur barki démb téléphone naa ko ci tuma ma bàyyil commissaire tontoogu ma toog nañ ñett yoon wax ci lu mel nii même président toog nañu wax ci kon te ñu xawuñ xam nañ li ñuy def nañ rab ci kudd ñu roof leen ci gayet mooy la am shakartu alayka la shukran yasiran